ndaje mi ku ne gis na ni mu demee dafa am nag lu ko waral parce que ku xam Alla la xam ko ci yaru moo ñi mu àndal xam ko ci dal xam ko ci dox ci jàmm euh, bi ñu dem ci ndaje ma fekk nañ fa ay responsable yu ndaw sax yoo xam ne dañoo ànd ak ay garde du corps ànd ak ay gros bras yéen yéen nga fa woon gis ngeen ne ñun bi ñuy ñëw ñu man ak ñu toog ci taabal bi rek lañu àndal. donc kon jàmm lañu doon dox si mais nag yar boobu muy wane ak teggin yi moo tax ñu bokkoon nappaaje te loolu duñ ko nangu ña toogoon ci saal ba ñëpp amu fa kenn ñëpp laa wax mën nañ ko lim benn kenn par kenn amu ca kenn koo xam ne li àll si liggéeyal président ci dëkk bi liggéeyal nga ko. donc mënuñu liggéey nag loolu yëpp ba agsi fii ñu war a taxawal ay commité électoral jëm ci ay échéances yoo xam ne yu mënuñ jëm ci échéances yu amee noonu solo kenn moo soxla muy président Macky Sall ñu gis ne responsable yi nga xam ne kenn gisu leen woon kenn déggu leen depuis législative yi kenn gisu ci terrain bi kenn déggu ñoo dajaloo di nas di nocci di defar ay zone te Alla Sylla la yëgut tinul woowuñu ko impliqué wuñu ko ñuy wax nag di attirer attention wu parti bi ak euh, le président Macky Sall le can notre nga xam ne lu ñu am mu faluwaat gañe Touba ñun moo ñu ko gënal. ñu di ko liggéeyal nag bu yàgg ba léegi investir lu bëree bëree bëri ci dëkk bi te kenn fekku ci Alla la jàppale ko moom ak ay moyens ak lépp ñu leen wax ne ñu koy wax ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci dëkk bi di woote woo ne ñooy kilifa yi dañ koy nax ci ay tappale ci lañ nekk ci ay lobbying ci lañ nekk te nag suñu responsabilité la ñu dénoncé ko suñu responsabilité la ñu wax wax président ne ko ñii dañ lay nax dañuy tappale ndaje yi ñu def yëpp dañuy tëju ñaar ak ñett ñoo koy ñooy tëju di ko di ko def te ñooñu noonu représenté wuñ lay responsables ay nit la ñoo xam ne ci seen bopp lañu nekk mënuñoo duy benn kaaru Ndiaga ba pare bëgg jël nit ñi en otage ñun nag comme ni ma ko waxee Alla Sylla du moom moo ñu jox instruction pour dara ñun bi ñuy dem dañ doon dem parce que daf nañ nañ dem ci ñoo waaye nag ñun en tant que ay politique dafa jot ñu wan président ko ñii dañ lay nax dañuy tappale donc loolu mooy li fa xew tey jii. ni ñu ko yàqee ak yooyu ñun demuñu woon pour yàq ko dañu demoon dañu demoon rek pour wax ne leen leen li ngeen def tegu leen ko ci yoon ñun jiw duñ ay yàqkat. loolu mooy li ma wax sànq nii en tout cas ñun ba ñuy dem li ñu yëkkati woon mooy dem wax leen wax leen ne leen li ñu nekk ay tappale la loolu moo ñu yëkkati woon ñun ànduñu ak ay ponkal ànduñu garde ko ànduñu ak kenn ñun ñoo demoon suñu bopp. donc bi ñu demee li ñu yóbbu woon mooy wax leen ne leen kat yoon bii ngeen jël baaxut en tout cas ñun ñun xeexuñu. ñun non ñun non du ñun ñoo ko yàq dëgg li ma la wax non yow yaa nga foon toog xam nga lu fa xew mooy ñun dañoo jóg taxaw ne leen li ngeen nekk ay du dëgg du yoon ay tappale la mooy li ma la wax sànq responsabilité bi xam nga ñan ñoo ko gàddu ñi nga xam ne ñoo bëgg a jël en otage ñi nga xam ne ñooy coalition benn Bokk Yaakaar ak la grande la coalition pour la pour une majorité présidentielle bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi am ay responsable yu mag yu fi nekk xeex ba tey jii nii ñu jàpp ne bu ñu demee élection ci nor ci yoon te dem ak ak ak ak ak nañ war a demee wax ak ñi ñu war a waxal bu boobaa dañuy gagné ñoo ñu bëgg a bëgg a bëgg a jël en tax nit ñi loolu loolu mooy indi problème bi. pare golo di bay baabu dund loolu du fi am mënuñu liggéey ba pare di bàyyi ay baadoolu jógul fenn ñu di ko capitaliser président la ñuy liggéeyal dañu jël suñu ay responsabilité li ñu liggéey kenn du koy yàq li ñu digal président pour mu gañe Touba benn doomu aadama du ko yàq wala ba ku bëgg a yàq suñu kaw ngay jaar ba pare.